baat boo xam waaw sama yaay xam nga xam xama yaay dafa sax si xol. ma bëgg ko lool sama yaay jooju mooy aji daaru mbay kooku ajaratu pendaloo bëggee yi mooy yaayam bànn fànku na mooy baayam mm-hmm. sama maam yooyu ma doon nag caatam mu bëgg ma mu bëgg ma lool xam nga ba bu ma gis ba bu ma gisul sax moom bu ma gisul bu ma gisul noo def mu jël téléphone bi woo ma foo ne mën ne ko yaa maa ngi nii kër ga mais maa ngi ñëw léegi waaw kon may may delluwaat may delluwaat rek ku ci yor sa yaay booy ah ko gën a fonk ndax yaay moom du moroom waaw loo mën a téye loo mën a téye sa yaay rek teel teel sa yaay ndax tamit nga doon xale xamoo dara di raam yaa jëla tette loo bëgg mu defal la ko kon sunu yaay jooju aji daaru mbay bu may wax si moom sax xam naa ni rongoñ xam nga rongoñ dina tur dinaa jooy jooyu xol mais nanu ñaanal sunu yaay yi ndax ndax ndax ndax ndax boo doonee boo doonee xale sa waaju jur la li la war mooy nga fonk leen te cëral leen waaw bul bul bul bul bul tàngal mukk seen xol man loolu lay dénk tey gune yi nga xam ni tey ñoo mujjee jug ndax ndax tey tey xam nga tey xam nga am na si ñoo xam ni moom waaw ñii ñii ñii ñii ñii ñii gisuñu seen yaay ñii gisuñu seen baay kon tey ñun ñi fi des ñun ñaanal rek suñu yaay yàgg fi lool waaw yàlla na jàmm yàgg. yàlla na jàmm yàgg amiin di ko yokk aw fatam. Mhm. te gën koo may gu wér. li nga yéene nga defal ko ko. waaw waaw rek laa bëgg. li ma li ma yéen li na sama xol il faut ma defal ko ko pour mën a nekk. mais ba voilà yow nag laal nga sama xol. Ah, waaw. mbay am na xam nga xam nga xale. boo nekkee xale euh, am na yoo xam ni bu la ko sa mag sa mag di defal image boobu doo ko fàtte mu man mën naa ne samay mag tey euh, bi ma nekkee xale aw moom dara lu ma dem jàmbat ku si mës jóge Europe valise nga may indil dàll bu gën a rafet nga indil ma ko mbay bi ma nekkee xale buggul woon kenn laal ma dama nekkee xale mbay damay solal trois pièces puudar ma billaahi fu mu fu muy dem yóbbu ma loolu maam Ndiaye loolu maam Ndiaye xam ne li may wax fu muy dem yóbbu ma buggul woon kenn laal ma mu doon mag ju baax joo xam du lu ma bokk ak moom ndey ak bàyyi mais mën naa ni kooku nit gënu ko mbay jeey tey tey xool ko ni mu mel tey ni mu mel gars naa ay mbay waa mbay mbaa mais mbay wax nu secret bi secret bi du loolu xol bu rafet mooy joxe loolu waaw dafay nit ku baax bëggul mbay ñun ñooy moromam mbay ñun ñun ñii ñooy morom ñun lay tooga di waxtaan tey boo demee këram bu fa ay rakku jàmbur ñëwee buy lekk ñoom lay lekk noo kenn du ko ber buggul sax loolu waaw mu doon mag ju baax ma koy ñaanu gudd fan ak wér gu yaram Seexu Yuusu maa ji génn moomu sama idole bi waaw man de parce que dafa am question boo xam ne daa am koo xam ne dama doon laajal mhm. bi dama woon Baye Demba est-ce que du xam ne rakkam la. ñu bëri nag ñu bëri nag fu ñu dajam eh doomu Mbaye bi man damay dox sax ñu naan ma eh Mbaye ba ci xale yu ndaw yi kon xam nga loolu loolu mbaax la damay dox sax ñu ne ma eh Mbaye ma taxaw tourné jàmmal seen teg ñoom mm. eh kii doomu Mbaye bi la. ñii rakku mbeje bi li ma gën a neex ci moom fu ma dem fu ma dem daja fa ay nit ñu baax dan naa ma rakku diw comme ça comme loolu loolu loolu loolu loolu loolu doon lu ma neex ci mbay maam rakku diw bi da da da nga ciy sagu daal voilà euh, ba tey tamit euh, ndax xam naa ne nag émission dina xaw a kii mhm. ndax dem euh, Demba dina am loo xam ne dina la ko mën a jox dëgg la bàyyi ba dem ma du tay ci musique bi. dëgg la ndax ku joué Ndongo Lo Ndongo Lo référence la ci musique bi. Mhm. référence la ci xale yi. référence la ci yenn mag ñi. Mhm. bàyyi ñu ku la xam ni nga ko wax 5-5 kenn du ne 5-5 te du wax sunu bàyyi bu baax ba alaaji V5 di ñaan sunu borom xaaral ko ci àjjana yu gën a kawe. dëgg la. waaye dañoo dañoo gisoon tamit ñu am benn complicité yàgg sa papa. merci paa bi. paa bi tey xamul lu ma doon woowee ministre. ministre ministre la ma doon woowee waaw. waa kër non waa kër gi xam na li may mu nee bëri mën a ma cim sama ministre bi ñëw na waaye. waaw ndax boobu cofel la. Hmm. li ñuy wax naan cofel ci doom man maay caat. Hmm. waaw mu jee julli ci kër gi nag wanuma leen daray ñàkk fayda. Hmm. waaw moom leen fulla ñoomit ñu doom ay ñu ñoom it samay mag doon ñu baax. sam papa li ma lay wax ci moom sam dafa doonoon ku diiñ ku jullite sam lu nekk ci poos bi bu bu saana toog kër ga bu doomu jàmbur ñëwee mu jox ko ko ci buntu kër ga la dem toog pilianam la dem teg ci buntu kër gi ngéwal ci watu ron gi fa lay toog lu nekk ci poos bi bu jàmbur jógee fa la ñëw na ko waa weeseeg man kat soxla de moom moom fi mu ne ko soxlee lan la mu ne kaa kër ga dee amul lu mu mu génnee joxe dara du nekk ci pose bi te xam ne ne yàlla dina ñëw moom noonu la doon doxe góor googu Baye Sang Sang moom noonu la doon doxee. Baye dafa am benn genre xeex bu am ci biir est loolu baax na ci diggante artistes waaw tey euh, comme li may wax rek ñoom ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci ñu ngi seen yoon li ñuy wax naan yoonu ndaw du gaaw. ñu ngi seen yoon ah. man de li ma leen di dénk mooy maa leen jiitu ci aar bi ku nekk sa camp mën nga fa liggéey toj. Ah. te mën naa ne coow coow sax du jib tey rakk rakk boo doonee rakk ci aar bi dangay ah, da topp da ngay da ngay topp mag ah mag it ah, rakk rakk jox cër magam te ku si ne yaa ngi yaa ngi fi ngay liggéeyee yaa ngi tëgg mu neex tëggal mu neex rek fan si yi bëggee hmm? waaw coow mën na bañ a jib man nangu naa loolu. waaw ku ne mën ngaa toog sa ruq di dóor muy neex. maa la wax lii waaye wax yu sew ci am ndax boo xoolee ci départ bi yëf yi dafa neexoon. Mhm. da nga daan gis ci benn euh, bërëb. waala yëg ci kaw seen yuuxu ba ne der Sidi Diop sàllal na ko ca wet ga mu sànni mu jox ko micro. maanaam loolu dafa neexoon. dafa neex bu ndee bu ci biir. Mhm. mel ni man dama je me dis que ni est-ce que du ci alentour yi est-ce que du ci alentour yi ñoo ñooy ñooy am lu ñuy créé mais ñoom ñaar dañ daan def duo yoo xamante ne ba tey da nga koy déglu sa xol di neex. dëgg la mais ko mën a dina ñëw sax. jàpp nga loolu bàyyi dem ak mi yëf yi dina ñëw ndax ndax ndax tey fii tey fii gis nañ fu lu ne. ci aar mm, mm. ak gis nañ fu lu ne. dinañ daje dinañ daje. ah yow ba mu nga gis mag ñi nag mbooloo woon coom seet. dëgg la dëgg la ndeysaan dëgg la bilaay. ëllëg si biir ah. Daaro Mbay na ko kaay ma ñëw. Fatou Géwal na ah, Kumba Gawlo Titi. Viviane waaw. Aïda Samb. waaw léegi lu bëgg yàq loolu. mooy waaw mooy li ma la wax rek nanu liggéey rek. Hmm. nanu liggéey ku su ne mën nga liggéey si sa coow bañ a jóg nan liggéey rek li leen dese bari na trop. mais ah ah. ah man de li ma leen di wax mooy ah. jëm leen liggéey rek lële jël leen ko ngeen teg ko lële te amul solo waaw loolu amul solo nan xool xoola wuy ma xam affaire bi yomb na nan xool ci seen mag ñi rek waaw fi ñu jaar tey nan xool seen mag ñi tey tey tey ñoom ñaanal naa leen ku su ne am sa album international ah raay yooyu moom raay yooyu raay yooyu moom nañ ci topp rek mm-hmm. waaw yàlla na jàmm yàgg jërëjëf mu nekkoon Baye Demba Seng Seng. Mhm. ñu dalaloon ko fii ci Dakar instant ak Dakar midi Baye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw euh, di rafetlu nag fii nga xam ni tey moom nga ma jël. waaw foo laa bëggoon ñëw. sama rakk sama xarit. waaw ñu naan ko Kara Moto. waaw man maa ko yar. mu doon waaw mu doon rakk ju am jom. Mm. bëgg li muy def duggul dara ci lu ñàkk fayda borom baax la bàyyi ñu koy jaajëfal bu baax mu doon ku disponible mhm. ndax tamit bu ko neexoon ne am naa tur bi toll naa fa mhm. boo ko woowee téléphone mu naan ma passe la manager wala naan ma boo ko woowee moom ngay jot direct bu sonn ñu koy jaajëfal bu baax a baax